waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu euh, waa Sénégal ak waa àdduna ak patriote yeeg képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre rek maa ngi lay bu baax waa di commencé ci woo ñëpp ci manifestation bi ñu am suba vendredi pour la libération des détenus politiques vendredi le 10 novembre incha allah mooy suba 15 heures départ bi nekk fale Gédo rond-point Gédo la Euh, arrivé bi nekk euh, rond-point Liberté 5 incha allah waa di di waxaat sénégalais yi rek que ni détenu yi nga xamante ne ñoo tëdd ci kaso bi yaakaar naa xeexal seen réew moo leen tëral foofu tey ñun bu ñu leen seetaanee dañ leen a war parce que ñun ak ñoom ñoo nekkoon ci biti doon ko fayet doon ko jaay jaayante ñu jàpp leen tëj leen injustement parce que lan parce que dañoo nekk di xeex dëgg di xeex liberté. Ousmane Sonko fee mu tëdd ñun ñoo tax mu tëdd fa ana patriote yi doon woote doon jaayante ne ñoom dañoo bëgg changement ci réew mi dañoo bëgg changement Sénégal man patriote yooyu laay laaj fan lañ nekk léegi parce que léegi gis naa ay événement ay leneen lañ tal te découragé n'est pas patriote te képp ku découragé war na Ousmane Sonko képp ku découragé war nga sa réew man damay toog bi am na mu métti jamono jii ana ñan ñoo fi nekkoon ba tax ñu tëjal ñu TikTok yeeg réseaux sociaux yi ana ñi fi nekkoon doon ñu xeexal bañ tëjal ñu internet bi tey may nañ ñeneen may nañ ñi ko tëjoon ndam ba ñoom taratuñ ñu sax waa diaspora bi ma leen di interpeller bu baax képp ku bàyyi sa loxo war nga Ousmane Sonko te dafa jot yéen diaspora bi ngeen bàyyi foofu ñibbisi parce que France bi ngeen nekk ñi nekk feneen ak feneen France quatre-vingts millions d'habitants lañ suuf France amul dara ñun on est dix-sept ou dix-huit millions suñu suuf suñu suñu suñu suñu suuf am na ressource yépp te ñun France lañ bëgg a dem lan moo tax amuñu njiit yu baax te loolu ñun ñoo koy xeexal suñu bopp France amul benn ressource nekk quatre-vingts millions d'habitants ba pare ñun ñu bëgg fa dem la révolution française moo ko indi na suñuy doomu réew ay mineurs lañ jàpp tëj leen ci kaso bi ay mineurs ñoo xam ne seen place école la dem jàngi école ñu université ñu dem dimbali seeni waajur ñu dem jàpp leen tëj leen ci kaso yi parce que dañoo bëgg seen réew ay jigéen ñu tëj leen ana ñu bëgg seen yaay yi seeni sœur ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi ñun ñu toog croiser les bras comme si dara xewul topp ay événement état bi jël ay événement fii ba décembre ñu xeex loo xamante ni depuis des années ñu ngi koy xeex ba mu def trois mois pour Sénégal changer ñu tegal ñu ay événement ñu nar ci concentré wu da ngay dugg ci réseaux sociaux pour nga gis actualité c'est tout un problème gaa yaa ngi dugal ay divertissement yi ñu ngi dugal leneen man ñi ñi mbubboo patriote ñooñu laay ñooñu laay interpellé xeex bi du xeexu Ousmane Sonko xeex bi du xeexu détenu yi parce que jàpp nañ leen ba pare ñun ñu fi des lan mooy suñu rôle xeex bi du xeexu ñu ñu tëj ñu ñu rey ñu tëdd ci biir armeel yi am na vidéo bu nga xam te ni ci biir xeex bi kooku dafa ne fexe leen ba liggéey bi bu mu bu mu bu mu échec na nangeen jàpp ci projet bi te kooku mu ngi blessé bañ naan kii day dee mais xelam mu ngi si ñun ñu nekk ci biir kaso bi su ngeen fa demee dañ naan leen yéen maintien leen ñun ñu ngi si jàmm ñun ñu bëgg a baisser les bras neexul ci xol ay nit xeexal ñu bañ tëj leen kaso ñu toog fa ñu leen nekkal fii dem nekk ci ay divertissement ay nit xeex ba ñu dóor leen bal ñu dee seen waajur gis ko am ñeneen ñu war a parce que projet bi relais kii bu dawee ba daanu keneen dafa war a jël relais bi continuer projet bii relais la man patriote yi laa am lu may waxal événement yi fi am ak programme yi état bi technique ngeen fay dem suba am na lu gën a important muy manifestation pour ñu libérer détenus yi nañ leen bàyyi ñu ñibbi seeni kër ñu am na suñu woo xamante ni seen waajur bu ñu lekkee ñoom ñoo leen ko jox keroog chemin de la libération bi dem nañ benn kër benn waajuru détenu bi muy wax sama daw mu ne moom buy liggéey doomam bi moo koy liggéey la ba fajar des fois moom mooy sax tëdd tëddulu ne ko noppalul pour booy bi nelaw moom mu jug jàppale moom mu jug yeggali ko parce que xale bi dafa sonn xale boobu lañ dem tëj si kaso bi moo nekkoon yaay yaay ji ku xale boobu moo nekkoon tànkam moo nekkoon ay loxoom ñi fi des bëgg a dem ci ay divertissement bëgg a dem ci leneen Sénégal changé moo ñu gënal ay benn quartier changé ñëpp am moo gën benn doomu aadama kese am bàyyi ibbi leen xel yi campagne ñu ngi nii ñu ciy jëm mosoo gisoo benn politicien mu sañu jox suñu yaay ay vax ak ay tiset Ousmane Sonko lu bëri def na ko si bopp yi mais li si des c'est à nous li si des ñoo koy defal suñu bopp bàyyi man maa ngi nii si laamu ji laa nekk taxaw xeex dëgg moo tax xoolal combat sax waxatuñ ko mais man je m'en fous parce que xeexuma intérêt personel man kese ma am ma njëriñ. j'ai des milliers de amis yoo xamante ni kenn amul ken xëyul kenn gontul lu ma am ñoom laa koy bokkal kon man ñu dem ma tëtal ma toog comme ñoom moo ma ko gënal fuuf ñu may jox man kase nañ leen delloo si waat xel yi te xam ni projet bii du pour Ousmane Sonko du pour Tapha Mbeur du pour keneen ak keneen projet bii c'est pour tout le Sénégal état bi système bii nii fekk jugu fi ñun ci souffrance la ñuy dee système bi fekk mi ngi fi ci jaay doole tëj ku la neex la ñuy dee da dem ci ay français feneen ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo nekk en cours su jaarul yoon dañ koy yóbbu procès Sénégal fii suñu ministre de l'intérieur kan moo ko sañ a yóbbu ci yoon injustice yooyu yëpp koy gis ñun ba pare ñu toog croiser les bras comme si dara xewul bu leen projet bi ñore bu leen Sénégal ñoree. bu leen seen avenir ñoree jóg leen bu leen xaar ku leen woo muy sénégalais yi fi nekk ak ñi nekk ci diaspora bi ku ci nekk côté domaine bi nga nekk ñi mën a communiquer ñu communiquer ñi mën a nekk ci réseaux sociaux yi ñu nekk ci parce que dañ ci nekkoon bay tëj internet parce que moment boobu noonu xeex bi tar mais instant yi nii ñëpp a baissé les bras bi yool Ousmane Sonko mi ngi fële état de santé dafa dafa doy waar waaye su ko neexoon def ni yeneen politiciens yi dem lekk tëdd jàpp ñaamuram yor ay milliards. mais defar Sénégal moo ko ko jaral mu dem tëdd fële ñun ñu bugg a dem tourner teg ci leneen maa ngi interpellé képp ku nga xamante ni bëgg nga sa réew képp ki nga xamante ne benn bakkan bu rot metti na la képp ku nga xamante ne benn doomu aadama tëj nañ ko ci kaso bii muy élève war a dem jàngi dem mel mais ñi ñu jàpp ñu tëj leen ci ngor lañ leen tëj seeni waajur dañoo fier ñun dem nañ seeti seeni famille parce que jàpp ñu leen ñuy rey nit agressé wuñ jaay ñu drogue tuxuñu sàccuñu dañoo défendre seen réew bañ injustice taxaw dëggal seen bopp ñu ne la ñeen du ngeen ko fi nekkee dem tëdd dem leen tëdd ci kaso bi ñooñu kaso bu seen place te dañ leen war a libéré dañ leen war a libéré te condition bi si am mais loolu nag ñun ñi nga xam xamante ni ñun ñooy sénégalais ñu ñoo leen koy xeexal parce que ñoom fee ñu leen tëj mënuñu fa génnee seen bopp ñu ñu nekk si biti nag nañ jóg nañ fighting fii ba décembre seen programme yi ñu def nii man banlieue bi sax laay waxal parce que man ci banlieue bi laa dëkk keroog dama déglu Luc Nicolaï ma am lu ma naqari yéen banlieue bi dañ leen a saaga dañ leen a insulté Luc Nicolaï mu ne état bi su dee banlieue bi dafa dem ba incontrôlable na jël ay moyens mu def ko si làmb ji pour ñu wan leen ni ñoom comme ay dof lañ boo leen defalee ay tëgg fecc concert ñu tourné si loolu fàtte actualité bi Luc Nicolaï loolu du cëram mais dinañ ko wan ne ñun banlieue bi ñoo rek moo ñu boole foofu mais ñun duñu ay dof boo xoolee ay intellectuel ñoo fa dëkk ay nit njaay ay responsable ay kilifa ñoo dëkk ci banlieue bi taluñu ay tëgg ki fecc Sénégal baax moo ñu gënal ay tëgg ki fecc état bi na jël milliards yi ne ci àddu ci Sénégal yëpp xëpp ko ci actualité yooyu nga xool xëpp ko ci programme yooyu nga xool ba xam jubbanti Sénégal duñ ko dem concentré wu si ay tëgg ka fecc bu leen kenn def ay dof jël ay xaalis dugal ko ci ay làmb dugal ko ci ay concert dugal ko ci leneen ak leneen xooleen programme yi fii ba décembre ku si nekk na dafa boppam analyse fii ba décembre ay programme week-end sur week-end pour ñu fàtte état de santé wu Ousmane Sonko ñu fàtte que ni Ousmane Sonko candidat la ñu fàtte que ni am na ay ñu tëj ci kaso ñu fàtte que ni am na ñu dee te ñun lañ doon xeexal nañ dem topp concert yi dem topp mosoo fi gis doomu ministre bu dem soirée publicité wala soirée kenn ña fay tous tasar mosoo fi gis benn doomu ministre bu dagg bi ñëw si stade bi di supporter benn mbër waaw am nañ fulla am nañ fayda te suñu xaalis lañuy ñuy utiliser noonu suñu xaalis la ñuy dundee taluñu ñun taluñu suñuy programme taluñu làmb taluñu soirée ñun ñu bëgg a topp ay làmb ak ay soirée ki concert loolu dafa jot réew boo amee benn cinquante mille dem yàq ko foofu suba lay jox say waajur suñ demee ba suñu nappkat yi ñoom ñooy jël gaal gi di dem Espagne te daan dem campagne di ñëw ay huit millions dix millions yaboo sax mënatuñ ko jàpp ndax tubaab nangu nañ géej ñun kañ lañ gëj a lekk jën ma mag jën ñun kañ lañ a lekk ku ne boo waxee yàlla xam ne yow mi ne Sénégal gën ngaa lekk jën bu normal loolu yëpp pour France moo ëpp stock amul or suñu or bi kenn tegu ko si yoon. baay bu jaaree yoon fi jeune bu ne di nga si génn ah. bu jaaree yoon jeune bu ne yaay mën sa bopp su jaaree yoon kaamaani dañuy ñibbisi su jaaree yoon kenn dootul jël gaal kon nag Ousmane Sonko du ko xeex keneen ak keneen du ko xeex ñun ñii ñoo koy xeexal suñu bopp baay nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi café ak fooy ak réew yi nañ bàyyi programme caaxaan yi trois mois moo def ci changé Sénégal ñetti weer ay at lañ ci topp di ci daw bu mu bàyyi ba mu nekk trois mois ñuy ñuy bàyyi suñu cible quoi sama xol nag neexul maa ngi tuub tey jéggalu maa ngi woo ñëpp ci manifestation bi bi suba incha allah 15 heures départ bi rond-point Gédo la arrivée bi Liberté 5.